asalaamaaleykum leen di nuyu di nuyu sénégalais yëpp di nuyu sénégalais yi di nuyu suñu mbokk site internet yi fi teew ah ñu ñu fas yéene waxtaanee li xew ci réew mi xam hmm? naa nag waxtaan bi dina xaw a yaatu <laughs> ndax gars yi bëri na luñ ñu logal waaye fas yéene nañ tamit lu ci gars yi laaj ñu jéem cee tontu li nga xam ne moom lañ ci xam ah di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg di nuyu vraiment suñu mbokk yëpp di nuyu Xaadim Bamba sama xaritu bopp nga xamante ne moom sama lépp la man moom du tey maa nuyu bu baax di ko siyaare waa di jaale tey suñu benn frère bi nga xamante ne dafa génn àdduna muy abu Diop ñu koy wax Ngathie Fall vraiment lii dafa naroon annulé wu sax mais la fekk ñu programme loo doomu aadama yi bañ bàyyi seen it yëpp ñëw ba pare mënuñu def leneen lu dul jéem ko assuré rek moo tax waral ñu def ko sax mais vraiment ñi nga naqar boo xamante ne xaw nañoo tiis nañu trop pour ñu di waxtaan ci yeneen ak yeneen mais nag la vie comme ça ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko suñu borom xare àjjana hmm? di ñaanal suñu per booy bambara yal na ko suñu borom xare àjjana di ñaanal suñu papa Hmm, Balla Gaye yàlla xare ko àjjana di ñaanal tamit suñuy frères yi nga xamante ne caabi daf leen féete ginnaaw ku ci mel ne bébé Diène ñu ngi koy ñaanal yàlla jëlee ko fi mu nekk te xam ne du place mais dañ koy wax ne yëfu góor la na muñ rek léegi mu jeex di ñaanal suñu beneen frère bu ñuy wax saa bokkal nekkoon ci Eumeu Sène moom it mu am nattu yu tegu ci kawam ñu koy ñaanal suñu borom jëlee ko ci. waaw pël foofu coow amu fa. jotaayu mbër noonu lay mel ah il faut gars yi ay coow du ay dara ah. mais jotaayu lay mel faaw a nekk jotaayu doole vraiment mu doon jotaayu bruit affaire yooyu loolu mënu see ñàkk mais li ci gënoon important ba gën ci important mooy kan moo ñu invité woon ak kooku mooy kan seetaan naa discours guy gi seetaan naa ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne génn nañu wax mais liñ siy waxte ñu si sori rek mooy wallaahi wal asi man kenn yoruma kenn yorul sama dépasse yàlla rek laa yaakaar bu ma déggoon guy gi wax ci lenn loo xamante ne amul bu ma toogee fii dama leen wax guy gi li wax ci discours bi dara amu ci li ma seetaan mais wax dëgg yàlla li ma ko déglu mu wax yëpp lu am la mais nag dafa am yoo xam ne amul njariñ jarul di toppaat ci ay détails di wax ndax nettali xuloo xuloo la guy gi nit ku baax la wax dëgg yàlla mosuñu toog mu fréquenté à part bi ñu dajee Amérique mais nit ku baax la parce que def nañ ko fa yu bari yoo xamante ne nii ci man lay xool bàyyi parce day wax ma ne ko sa mun a maa ma ne ko doo def lii defal lii ak lii ak lii ak lii ak te pourtant bu ko neexoon ne booy bi mais daf may fekk ci def li mu wax may rek li ma ko seetaan mu wax ci télé bi yëpp lu am la ñu koy wax tamit ne moom moo war a muñ parce que mooy ni ma ko waxee woon Amérique rek yow doo mobile doo ñi nga bëgg a guy gi amul loo xamante ne nii man fekkee naa ko Amérique mu def ko lu ñu ko mën a xeebee. waaw mooy li ma wax rek loolu du problème mu mbër yi wala footballeur yi wala lii wala laa affaire doomu aadama la doomu aadama mooy yar boppam ndax dafa am benn wax bu moo di wax mooy kaas bu nekk bu bënnee di senn li ci def rek lay senn. man fi ne nii fii li ma ci bëgg a wax rek laa ci mën a wax kenn mënu ma wax loo leneen loo xamante ne nii nekkul ci man wala dara mais am na loo xamante ne nii nag faaw mu egg si média bi pour mu faju mais man dama jàpp ne média yi nii nii nii nii maanaam lancé wukaay message la ñoo xamante ne mënoo wër ñëpp pour wax ak ñoom mais nekkul xuloowukaay loolu tamit dama ciy lancé sama yenn mbokk yi nga xamante ne dañoo yor site internet nga xamante ne leer na leen ne demee jëli Balla Gaye ñeme wuñ bi leer na leen ne bu ñu jëlee Modou Lo ko ko laaj leer na leen leer na bu ñu ñëwee ci mobile 2 mënuñu koo dugal ci wax yi nii mais faaw ñu dem jëli benn nit koo xam ne waxkatu lu ëpp la nga jël ko te li nga koy jël ci semaine bi doo ko jël mbër muy wax ci làmb lu am njëriñ te yow da taxaw nga ne da ngaa bëgg làmb jëm kanam da bëgg nit ñi bañ a xeeb làmb te bëri na si ñoo xamante ne nii ci àdduna yàkkamtiwuñ lu dul nitu làmb wax lu luñ la koy xeebee yàkkamtiwuñ lu dul ñuy dégg ci làmb détail bu amul njëriñ mais lan moo tax nga gis ngeen gis dëkk bi fii ñoo xamante ne ci làmb la ñuy wax te li ñu ciy wax day am njëriñ li ñu ciy wax kii mbër mun na koo jëriñoo ku dul mbër mun na koo jëriñoo mais da nga naan nekk ñun dañoo loo ne buzz lay doon ñoo dagg dugal TikTok ñoo am lu ñu dagg di ko waxee mu taal kii guerre nga wax mu taal kay guerre nga wax mu taal kay guerre kooku moo leen gënal ñu ko bañ koo dugal mais bu fi waxul lu ëpp moom ngeen njëkk a li ci am njëriñ mun ngeen ko sax teggi dugal lee parce que lee la ñuy vi lee la ñuy commentaire di saaga mobile lee la commentaire di xeeb nitu làmb kon li ci ëpp mun na nekk ci man mi koy wax mais man mi koy wax fan laa ko lancé la moo tax kooku jàllale ko parce que man pël boo ñëwoon ci man saaga ku mel ne wala galaay ñu waxtaan nga wax ma ci galaay lu baax lépp wax ma ñaari jikko yoo xam ne ci galaay bu ko galaay déggee mer mais bu ma yeggee wax ko lu baax li nga ma wax ci moom jikko yi nga xam ne wax nga ma ko ci moom te bu ma ko waxee mu meral jar mën naa cee bañ a yegg mooy comme lii rek lan maanaam bëri na ñuy wax ci làmb li ñuy wax ci làmb boo ko déggee xeeb làmb xeeb kuy xëy ci làmb am na wala amul bëri na ñoo xam ne ñi ngi wax ci làmb li ñuy wax ci làmb boo ko déggee xeeb ñi parce que da ngay jàpp ne est esprit nit ak tur bi kii turam fi mu yegg est-ce que nii la war a waxtaanee est-ce que lii muy wax nii lii la war a wax quoi day mel na nga romb benn nit ci tali bi nga dégg ko micro mu wax lu ko neex. est-ce que kooku ak tey mobile wala tey du ma ne sax mobile ndax mobile du fi leen est-ce que kooku tey war naa mën a yem ak benn nit koo xam ne turam foo ko bindee ci internet bi gis ko parce tamit fii àdduna la lii internet la man li ma ciy wax xooluma ci man mii toog xooluma si ñii ma koy waxal mais damaa xam ne am naa soxna am naa doom te lii internet la la day toog ñu ne ko moo fi waxoon lii parce que tey Falaye Balde tey da ngay tàppe ay discours am ci net bi gis ko da nga fiy tàppe yu mbéy gis ko Fallaye bu fi waxoon lu ñu koy xeebee Ama Baldé du génn sigi xool moromam loolu la ñuy bàyyi xel mais du ay nit ñuy wër nii parce bu dee ñun ak ñun mun nañ gérer suñu bopp mun naa def lu ma wax neexul nit ñu ko génn di wax man la man la neex maa mais ëllëg sama doom day romb day naan sama papa moom la neex est que sama yaay day romb ñu ne kii mooy mooy jur xale bi waxoon bërki démb lii ci internet bi waaw mooy li ngay wax problème mu liiru jaan guy gi li Abdou juuf nii ak nii man liiru jaan laa njëkk xam ko guy gi parce que liiru jaan moo ma yar moo ko man Ikri Waalo laa débuté may nekk xale bu ndaw laa fa nekk ñooñu laa gën a xam ko guy gi nee naa la man li may dundee maa koy liggéey guy gi mun naa am événement ba événement mooy tax ñu bëkkante wala keneen ak keneen ak keneen diiru jaan dañuy faral di déggante man a moom WhatsApp nee naa la nettali xuloo xuloo la te bari na détails yoo xamante ne nii man àdduna jaraluma ma ciy dox mais dama ne la Serigne Touba rek laa gëm gawuma kuy dox ci àdduna billaahi wallaahi wa taalaahi guy gi deful Amérique lu ko nit di xeebee waxuma kenn def na ko fa waxul Amérique lu nit di dégg di jàpp sa gémmiñ foofu laa yem àdduna amul solo te nettali xuloo xulool te damay wax ne suñu dem Amérique yaakaar naa important bi gënoon na bëri ka ñu toog di wax kii ak kii xuloo nañ kee kee jote nañ kee kee jote nañ parce que dañoo jóg dem Amérique coow li bëri woon loolu suñu ginnaaw ku ci nekk lan moo leen yëkkati lan moo leen yóbbu ak lan moo leen yóbbu yaakaar naa bi ñu ñëwoon loolu moo doon ëppal sénégalais ñu wax leen ki ñu yóbbu woon mooy kan ak lan la ñu yóbbu woon ak lu mu ñu doon doyee maa ngi dégg tamit ngay wax ci problème mu jëf-jël ama neex affaire yu demee noonu wax naa la ko sànq sama biir wax ma ne la jotaay mbër mënul ñàkk loolu jëf-jël sama xarit la depuis Sénégal man ak moom histoire moo tax ñu xamante dafa nekkoon dafa nekkoon parcelle ma doon dégg ay jëf-jël kenn ñemewul ñëw parcelle fekk ko fa tëkku ko wala lii wala laa moom muy dégg ci loolu Mawil Grand Yoff ma ne kii bis bu ñu dajee parcelle man ak moom làmb du yegg yàlla def man ak moom ñu bëre ci biir bëre boobu noonu ñu jóge fa jàppante man ak moom fasante kóllëre mu nekk sama xarit vraiment ñuy déggante ci yu bari heure bu ma ñëwee Amérique day jàpp ci samay affaires yu baree baree baree baree baree baree jëf jël ak moo gét amuñu problème nañ bàyyi di wax loolu jëf amul ak kenn problème ndax moom góor yàlla la jëf jël Baay Faal la moo amul ak nit kuy dund problème ndax moo gét xol bi dara nekku ci ba muy jàppal nit problème yée nañ bàyyi di wax loolu loolu ay détails la àdduna amul solo jëf jëla rat kii fan la jëlee xaalisam fan la liyee fan la laayee fan la lee est-ce que loolu dinañu amal njëriñ quoi lenn nag mooñ ci amal njëriñ pour moo géet toog ci internet bi wax moom jaar-jaaram pour ñi nga xam ne amaguñ li mu am ñu jéem a xam ne kon ku tegu fii suñu borom mun na laa dimbalee nii parce que man tey damay toog di seetaan benn américain dégg multimilliardaire la may ñaan yàlla mel ne moom sénégalais nga dégg millionnaire la nga ne ah waaw moom moo moom kenkaari bi moom moom lii mais nga dégg sénégalais milliardaire la seede day bari xam nañ la xamuñu la parce que sénégalais warul am milliard te ñun ñi koy am ñoom yi nga xam ne dañ leen naw muy tubaab wala muy leneen wala muy lii bu ñu doon topp ressource bu baax baax ñun ñoo leen ko gën la ci côté bépp kon lan moo tax waruñoo nekk milliardaire lan moo tax Sénégal ku nekk milliardaire sa der bi bëri ay gàkk-gàkk problème bi lan la quoi ñun milliard mérité wuñ ko waruñu ko am léegi kon lan mooy problème lan moo tax ku nekk milliardaire ñu ne foo ko jëlee di seetaan américain bi naan kii moo ëpp xaalis monde bi doo lijjanti fu mu ko jëlee di ko seetaan ci tubaab bi di ko seetaan fépp waaw loolu mus naa ci wax axanaa ah, du jar ñu ci waxaat ak waxaat sax nee naa la ñun judduwuñ fekk lépp neex te man damay wax ne nit avant âge majeur am mun nga koo dolli lu nekk ci boppam ba mu des bu demee ba xam-xàmmee mooy man damay wax ñaar rek la nit di amee jom damay judd fekk sam papa nekk milliardaire ma xam ne sama pap bu fooye woon ndawam du ma fi fekk lii mbaa ma judd fekk ma kër gi neex te mënumaa gëstu samay wax sama pap nan la nekkee woon fii tey ba ma fekk kër gi deme nii mu demee ñaar yooyu leen di amee jom li ci ëpp njëriñ nag ba ëpp njëriñ mooy tey li tax ñun bu ñu gisee ku tawat wala ku demee neneen ñu ci dox yenn tànk yi mooy waxoon naa ko du jar nga ci jaar parce que bëri du bëri njëriñ loolu mais juddu judduwuñ fekk mu neex ñun judduwuñ di fekk suñu kër di samp saaku ceeb wala di fekk añ di tege reer di tege ndékki di tege xamuñu ko dañoo judd ba màgg rayanteel suñu bopp jaayante ko ba mun koo def kon jaar nañ foofu noonu nga xamante ne nii mooy métti ñun nekk nañ nekk nañ xale boo ne sama yaay sama bopp day métti mu dem wuti garabu niim daggal la ci ay kii tegal la fi xob yi jël musóor takk ci yàggu ñoo xam ne paracetamol day faj bopp yu métti te bi la sa yaay di jël ay xobu niim di ko teg sa bopp di ko takk lépp ñàkk lu mu la jëndalee garab ci pharmacie bi moo ko waral kon tay boo jaaree ci yooyu yëpp yaakaar naa dimbalewaate day yomb ci yow dimbalewaate day yomb léegi nag li ci am solo bu am solo mooy est-ce que tey Sénégal da war a gis nit feebar di am problème mu paasu taxi bi ko yóbbu hôpital ñu tàgge ko 8 heures nga sangu sa kër 9 nga dem buntu këram fekk ñu yeew ñeenti nag kilifa yi ci réew mi yëpp. du ñu yëg feebaru kenn mais dëj moom doo leen ko annoncé ñoo la fay jiitu yëguma woon feebar bi moom seen kàddu la moom mais dëj bi moom lu mu teel teel teel teel li nga leen fekk ñu gaare ko suñu pap booy bambara du tëbal si bi jege see man seeti naa ko man ak waa ëttu làmb ji ma leen nuyuwaale au passage doon ko yóbbul njëgu xaru tëbal si waxtaan ak doomam bi nga xam ne moo ko yoroon lépp ci këram mais bi mu la expliqué man bi paa bi di gaañu maa ngi Amérique ñëwaguma Sénégal mais tey bu la doom ji expliqué da ngay jàppale est-ce que kii mooy booy bambara bi ñuy wax ne moo yor drapeau roi des arènes est-ce kii mooy booy bambara bi ñu wax ne moo def lii ci làmb moo def lii ci làmb est-ce que kii mooy booy bambara bi ñu wax ne politicien bu nekk jaar na ci loxoom pour mun a siiw tey booy bambara boobu moo gaañu dëj bi bugg a toll ne grand théâtre booy bambara boobu moo nelaw dëj bi war a toll ne grand théâtre il faut ñu xoolaat booy Malika ñu ngi koy annoncé bal nekk ci biiram. ñu war a génnee bal bi mu war a def opération opération bi ñu ne 6 millions CFA la 6 millions CFA la ci internet bi lañ ko wax amul ku ko yëgul dañ koy ñaanal suñu borom saafara ko mais bu wàccoon liggéey saaku ceeb bi day ëpp 6 millions waxuma la bu ñu naree jow ci gàtt yeeg yooyu est-ce que noonu la Sénégal war a doxee man dama ne bëgguma nekk milliardaire man mobile ku ko wax ñu ne bëggoo lu baax parce que ay milliards daa ëpp ci man lu ma koy doyee bu fekkee fu ma tëdd suturloo ak sama njaboot ma lekk lu ma naan matul milliard li ma sunu borom na a jox ma koy nekk milliardaire na ko séddale ñu amul ne man mais est-ce que nit war naa mën a yor ay milliards dëkk ci goxam bu génnee këram ak bi ci toppaat bi ci toppaat ak yépp añ lañ mën a assuré mënuñoo assuré reer Sénégal ngay dégg mille milliardaires boo demee seen dëkk yi ba tey teen la ñuy root ñun ci ban réew lañ nekk léegi li fi xew mooy man aw ma yow amoo keneen amul nañuy ànd suñu biir ñooy mayante jabar ñooy tuddante doom ñooy demalante ay dëj doomi milliardaire doomi milliardaire lay takk ndax fii moom kenn dégg ko fi ñu annoncé la ñu baal ma ci tur yi may tudd doomu Youssou Ndour bi takk jabar fii nii Arafat wala bi takk jabar Grand Yoff wala lenn wala mooy takki jabar seen village seen cosaan doo ko dégg fi ñu dëkk la ñuy takkantee jabar ndax da ngay génn sa kër jaaxaarloog ngay takk léegi noonu la Sénégal war a doxee quoi ñi ñàkk rek ñooy ànd pour phénomène boobu mun a jeex ci dëkk bi mooy li ma doon wax sànq tey zaaru nit yi mel ne ay moo géet wala ay lii dañu leen war a di encourager ci Sénégal te bañ di jël yenn gàkk-gàkk yi di ko teg ci seen i der parce que man nee naa ñuy wax moo gét dóorkat la yépp am nañ ci droit mais man pour ma mënoon teg sama baaraam ci dóorkat bi ñuy wax mooy da nga may indil nit ne ma galaay mii moom moo géet mos nañ séeq lii moo géet dóor ko diw moo kii mos nañ séeq kii dóor ko mais dóorkat la li tax dóorkat la mooy dafa am xaalis bu bari te sénégalais la sénégalais warul am xaalis bu bari ñun noonu la ñuy dundee rek dóorkat la li mu am dafa bari waru koo am dóorkat la ñun noonu lañuy dundee léegi tey ñu ëpp ñu bëri le ne moom ñi ngi ci réew mi mais dañuy mujj toog seen ruq man toog naa Amérique billaay wallaay taalaay moo gét def ay social ci jumaa yi affaire yooyu noonu ci kër diine yi kilifa gu mag fii senegal kilifa gu mag woo ko ne ko ëppale wooñu li nga yor bu ñu yorul lu ko ëpp mais toogal nga xool sa fay ak sénégalais yi lan la téléphone direct mu ne ko ah mu a waaw mu ne ko ok baax na lu ma ci fekk tamit ma xam ne loolu la ndax dama kaa def te yàlla tax moo bi mu xëyee laa la wax youtube bi lépp ay saaga la ci fekk na wax fu muy jëlee xaalis na wax lii na wax laa na wax parce que lan moom sénégalais la li muy maye dafa bari sénégalais moom dañ leen limité li nga war a am mooy million bul ko weesu milliard pour nit ku xees la <laughs> waaw ah, ñu ngi lay delloo seer bu doon. sama question bi ma lay laaj mooy assurance bi mbër yi fay lan lay jëriñ parce que boo dee xool mbër yi bu ñu feebalee ku mel ne booy Malika ak ñeneen lañ ne temps dañuy dem ba dañuy sonn sonn boo xamante ne seen mbokku mbër yi ñooy ñëw di leen wàllu seen adversaire yi ñooy ñëw di leen wàllu. Hmm. assurance bi mbër yi fay bi ñuy nag lan la leen di jëriñ. assurance boobu dañ koy décorer licence bi rek taf bu rafet la quoi. <laughs> taf bu rafet la. ah comme assuré wul dara kay pour décor la. ah gis nga ne am na ku blessé ci làmb kay. assurance assuré wu ko kay kon kay décor la. day mel ne daamine bii ci yére bi rek. <laughs> waa xam nga loolu mos naa ci waxtaan benn groupe boo xamante nii dañ ko defoon muy dekki làmb moom ay détails yu ndaw yu fa am te man moom xam nga xajuma ci ay détails ndax man moom dëgg moom ni mu nekkee laa koy waxee ma quitté groupe bi mos nañ toog di waxtaan ma ne leen heure bu nitu làmb feebaree ay soxlaam senegal yëpp xam ko te li ciy faju du mat moitié te dinañ ko weer àdduna bi yëpp ku am problème mu 3 millions ngeen weer ko ci internet bi fépp jàllale ko nga gis dama bëgg li may wax xam naa ne day xaw a kii tuuti quoi mais da ngay imaginer man ma dem kër Ndéné yóbbu fa soxlay 1 million Ndéné réew mi yëpp xam ne Ndéné c'est un millionnaire wala c'est un ma ñëw expliquer ko ko lépp sama soxla weer sama bopp mu dugg ci saalam génnee 100000 jox ma dem maa jàppee lii il faut que esprit boobu noonu mu jóge si ñun sénégalais. ñu xam ne gis nga ku sa soxla toll ci kopp bu la yàlla joxe paan daf laa séddaleloo boo baadoolaa nag da nga naan dama ciy sangu li ci des ma diwoo ko mais doo set parce que du pour yow il nit ñi xam loolu milliardaire li ci réew mi munoo muusa ka waane muusa ka waane ba sa dépense kër journée ëpp cent mille ndax kenn du fi añee giléem il faut ñu jël suñu xol yi nii suñu xol yi ñu xam ne nit lu dul sa wërsëg mënul jaar ci sa put gi te put du fatt fii ak borom li fi wet si àdduna jeexul mus naa taxaw dekki làmb ma ne leen tey chaque jour nit feebar ci làmb ñu génn jàppal fii xëccal kii wool kii wool kaa te pourtant y a 8000 licenciés bu ñu doon def weer bu nekk licence bu nekk mbër mu nekk 1000 francs lay natt mbër mu nekk 1000 francs bi ma ko waxee ñu ne ma ñun 8000 licences dañoo xam ñëpp man leen 8000 licences ñi jëlal kaye jox Max Mbargane ni ko bindal ma numéro téléphone mbër yi nga yor yëpp jël kaye jox Abdoulaye Ndiaye jox keneen matuñ 10 ménages nga dajale 8000 licences yëpp 8000 licences chaque weer ku ne 1000 francs 8 millions la chaque 1 an 96 millions la dinañ ko ketal mois 8 millions la chaque 1 an 96 millions la te pourtant 1 an bu jot mbër man 12000 francs laa ci nat ndax 1 an bi mois la. munoo dem ba di ci xool mbër moo xamante ne nii xam nga ne kii làmb neex ko moo ko ci boole mais xam nga ne munu cee sori ñu signé moom suñuy kayit yu leer nañ yëkkati suñu 7 millions nangam abal ko wala ñoo xam luñ ko mën a abal mu dem di def leneen chaque weer muy ñëw di verser mbër yi temps dimbale woo ko mbër mënut a am combat ba ci biir préparation am jeexal tàkk dootul yor dara mu ñëw lépp mu association bi 10 millions ñu ko al ko mu yeggali préparation te pourtant ki muy dajal mu ci association bi mais soxlawul te ñun dañuy liggéey nañ la abal 10 millions boo paree boo ñuy fay nga fay suñu 10 millions 100 000 ñu signé ko yow ci kayit yu leer. mais boo ko waxee dañuy wax kii benn booy la boo xam ne day ñëw ci groupe bi di imposé di jaay xam-xam bu bëree ak lii ak lii man jàngu ma man école bi jamono sa a sa laa jàng kon dama leen mën a jaay xam-xam bu bëri mais dëgg moo amul jàng ak ñàkk a jàng ah man jàngu ma